ma demel ne demel ne C'est bon, on peut y aller. bon, on peut y aller. waaw j'avoue si on les attend euh, waaw. Euh, ngi leen di nuyu yéen ñëpp.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 waxee ne ko dañuy dem wal fajiri par rapport à ça daf ne ma du ma la fi du ma la fi bàyyi damay ànd ak yow donc muy ces ces valeurs euh, humaines et humanistes yi nga xam ne moom la Sénégal mës a xam au-delà li nga xam ne moom la ñuy représenter je pense que on gagnerait tous euh, ñuy valeurs yooyu noonu ñuy def ñuy def en sorte que mu mu perdurer ku ci am ndog-ndog wala nga am naqar ñu mën ko bokk ak yow ku ci am bànneex euh, ñu bokk ak yow mais heureusement bu ñu discuter ak commandant bi wax nañu ne.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 yi nga xam ne ñooy liggéey fii di leen wax ne en tout cas ak taskatu xabaar yëpp aussi parce que lu dal Walfadjri je pense que yéen ñëpp aussi am ngeen ci naqar di wax rek ne on sera là en tout cas pour accompagner dans la mesure du possible lépp loo xam ne mën na leen ci accompagner incha allah je vous remercie. voilà euh, nous, nous venus au fait nous enquérir de la situation de de Walfadjri donc euh, euh dont les locaux ont connu un incendie cet après-midi.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 <laughs> désolé désolé désolé. ñoom ñoo ko nekk mais. kon kenn ñoo ko wutee rek aussi. non. cool.